salaamaaleykum sunu mbokk internet diaspora 221 ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte contentement sason su ne di jàkkaarloog yéen fii ci seen site préféré tey nag ñu ngi dalal nit koo xam ne xam naa ne namoon ngeen ko bu baax a baax ci écran yi Alioune Mbaye lañ koy wax le grand artiste comédien mais Alioune Mbaye borom mouvement jóg jot na Alioune Mbaye maa ngi lay nuyu. waaw auzu billah bismillah tawakkaltu leen bu baax di leen jox seen wàccuwaay di sant kilifa diine yi di sant bépp internet boo xam ni jamono bi yaa ngi bàyyi sa yitt di nu xerawlu jox yàlla nu yàlla defal dégg ak topp yàlla bu nu accident làmmiñ dal di sant bu baax di leen gërëm di wax waaleykum salaam wa rahmatullah macha allah Alioune Mbaye nuyoo bi am na solo mais Alioune Mbaye tey dama bëgg ñu waxtaanee ci ñaari pàcc. Hmm. ci sa wàllu liggéey euh, comme artiste comédien. Hmm. mais ci sa wàllu mouvement jóg jot na. ci hmm. actualité ñu ngi koy dund. Mhm. Alioune Mbaye foo nekk dañ laa gëj a gis si écran yi ci théâtre yi ak série yi maa ngi ci xam nga aar moom gars yi bu la gisul ci écran bi rek pour yow nekkoo ci mais am na yu ma participé sax tout récemment mais bariwul mais jamono yii nag dama gënoon concentré wu comme dama amoon doom ju bees. muy mouvement. Mhm. ma concentré woon ci di jéem a exercer parce que aar moom mooy loo xam ni jarul. daaw jarul waax li am solo mooy dee ko dee ko jàng rek parce que moo soxla liir ba téeméeri at moo tax nekkul loo xam ne da ngay retraité wala nangam te lépp kenn mënu ko dajal te nit day toll foo xam ne il faut mu def reculer pour xool moom lan la mën a ko lan la mën a apporter aar ak li muy def di jouer nit ñi moom naka la mën a def ba am maison de production pour apporter fexe ba aar bi jóge A dem ak mouvement bi ma yoroon fan nii moo taxoon mais ñoo ngi ci ñu ngi waajal koor gi nga xam ni taarix la ci ñuy bégal nit ñi di leen mm. jox li nu moom ñu ngi ci wàccaay bu baax macha allah mm-hmm. am na solo Alioune bay tey da ngay gis ne série yi les choses ont changé comme niñ koy waxee saa su ne ñu bëri tey téléfilm yi su génnee dañ leen daal di ŋàññ tey lan moo ci saxalaat kan moo leen di ŋàññ dañ leen di ŋàññ sénégalais yi tey la xam ne bu njëkk ba moo daan am ci série yi tey amatul dañuy gis ay scènes yu obscène ñu koy daal di def jigéen buy simmeeku jigéen ba nga xam ne tey day bokk ak góor benn laal ñu fanaan benn laal def yaramu neen te nit ñi di ko ŋàññi ndax théâtre jar na ko waaw non xam nga tey rôle ak action dafa am rôle mooy ki porté benn rôle pour dénoncer benn kuy jaay boppam wala ku sàggan wala ku nangam loolu nit mën na ko def parce que tey tëdd bi nga gis ñu ngi tëdd bari na yoo xam ni caméraman yi ñëpp ngi toog nga tëdd nii pour simuler mm-hmm. action nag kenn santu ko kenn mooy dama bëgg a wax ni kii day jaay boppam il faut ma summeeku nit ki tëdd sama kaw loolu action la foo nit ñi xam ko beneen bi souvent li nuy laaj nit ñi danga tey Alioune Mbaye acteur la bëgg na nekk producteur mais yeggagu ci mais producteur bu ne am moom mooy dem ut scénaristam ñu bind jël benn artiste souvent sunu jigéen ñi ñoo war a xool seen bopp wala bu ñuy dugg ci mbir ñu laaj parce que ku fi bëgg a def dara rek jigéen ngay def outil pour mën a exercer benn benn message boo xam ni li ngi ci jublu mooy mu apporter la say vie wala sa film am buzz loolu jigéen ji moo war a xool boppam beneen bi série defarul kenn yàqul kenn nit ku nekk sa éducation de base moo lay gunge bu fekkee da dugg ci si mbir faaw nga xàmmee lan mooy rôle lan mooy action lan mooy personnage pour mën a véhiculer bu fekkee ne producteur bi dafa la bëgg a sant dara parce que am na yoo xam ni Sénégal xamuñu liggéey producteur artiste bi dafay interprète rek tey bu nee scène bi lii la artiste bi ko def dañ ko ko sant moo tax yenn saay sax am question yoo xam ni dañ koy wax artiste sa fekk artiste moomu ko parce que moom dafay interpréter rek mhm. rôle bi moom nag moo war a xool comme moom la yat bi dal te souvent nit ñi xamu xàmmewuñu loolu bul la nar a def loolu yi nga xool li la ci sa diine may ak li sa aada may parce que nekkuñu ci cinéma mhm. téléfilm la ñu doon seetaan ay novelas sénégalais mu ñëw à travers ak ay un café avec dina ma neex tund wundu sénégalais yi recevoir ko ba ñëpp daw nekk ci mhm. bari na producteurs yoo xam ni nag euh, téléfilm bi avancé taxu leen a jóg leen taxaloo jóg mooy boo ci dugalee cent franc mën nga ci am cinq cent seen business lay ñëw mhm. mais yow mi ko moom yow mi ko xam yow yaa war xool lan ngay def bu la mhm. jotul doo ko solo sa nawle parce que àdduna benn vidéo bu dugg cent ans lay def yow yaay war a xool sa réputation tey yu bari duñ ko bàyyi mais dafay bind bind boo xam ni barki dem maa ngi koy waxtaan ak Aliou Ndiaye ma ne ko malheureusement uh-huh. borom xel yi ngay waxal te nit ñi duñu comprendre kon nit ñi ñoom ñoo bëgg di seetaan lu naqari tey film yi ngi fiy dégg ñuy duut baaraam mais vie yi ñaata lay doon des millions de kon ñun sénégalais yi ñoo am da ngay yar sa gis nga yar xam nga lan mooy éducation mooy da yar sa doom ba li mu xool mu xam lan la ciy saytu ak lan la ciy moytu. Uh-huh. mais du télé mooy ñëw di yar nit ñi loolu bu ñu demee ba di ko wax sax nañu xoolaat société bi ban société la. Uh-huh. télé dafay proposer am na influence nag ci yaru nit ki mais bu fekkee ni yaroon nga sa doom ba li may faral di wax bopp jigéen comme bopp comme wifi mm-hmm. tey sama wifi bee bu ma ko côté boo fi ñëwee toog boo xoolee xool gis ñu côté ko da nga naan ma sa côté wifi laa bëgg ma jox la ko mm-hmm. wala man la joxuma la ko mm-hmm. jigéen tamit noon la mel yow yaay defar boppam telle sorte que góor gu ñëw ci moom mu xam fi muy yem ak moom ba ko góor ki bëggee code bi mu ñëw ci way jur wi mooy ca mooy ñaan ko joxe can ñu jox ko code bi mu door a mhm. foofu lañ toll mais bu fekkee yaroo sa doom tamit di di mbubboo ay téléfilm non da ngay nax sa bopp parce que jamono mooy yàqu. Mhm. bu njëkk tey benn téléphone fixe mooy am ci kër ñu woo nit ki joxe rendez-vous 17 wala 18h nga dem xaar fa. Mhm. léegi téléphone yi mi ngi ci loxo. pour nga yar nit dafay jafe influence yi bari na te ku am kilifa du gàggante koo ci mbedd. mais est-ce que ñëpp am kilifa moo tax ñi koy def nan xoolaat seen diggante ak seen yàlla mais mhm. tamit nit ñi nan yar seen doom ba mu mën a xàmmee li muy moytu ak li muy li jël macha allah am na solo nit ñi nañu am kilifa mais ci biir loolu mhm. tey bu njëkk ba dañ daan gis nit ñi dañuy lancer casting def ne ah man de maison de production bi dafa soxla ay théâtre kat wala dafa soxla ay nit pour benn téléfilm buy waaj mhm. mais tey dama gis souvent casting ciblé moo ci ëpp comme tey man gis nañ man man si man awa maa ngi fenn siiw naa am naa forme bu rafet jekk na du xooli professionnel bi tey maanaam nit ki en personne. comprendre la xool. mais xam nga nit ñi day def benn erreur. Mm-hmm. dafa am théâtre am téléfilm am acteur am actrice. Mm-hmm. am comédien am comédienne. même le comédien ak la comédienne devenir un acteur wala actrice. Mm-hmm. comme ni ko civil bi nga xamante ni jàngul du comédien ñëwee nekk devenir un acteur wala une actrice mhm. ki yor filmam di ko jaay am na droit fekk benn jaaykatu gerte mu gis ni kii la bindoon c'est-à-dire kassin profil ngay wër waroo xam-xam nii day jaawale kassin profil ngay wër léegi nag profil bi bu fekkee dëppoo na ak li ngay wër bu réalisateur bi aayee du feeñ ci kii mës na def théâtre wala mësul def théâtre parce que même comédien bi wala comédienne bi moom it dafay ñëw pour pour adopter ci téléfilm mais tekkiwul parce que bokkul. Mhm. bu dee bu dee théâtre sur ngay amplifier. bu dee mhm. fii jaru ko parce que ah. caméra bi mu ngi zoom. Mhm. théâtre sur scène booy joxe da pour public bi ngay waxal bu dee fii nii rek ngay def ñu ñëw jël ko. c'est-à-dire bokkul léegi nag ki def filmam di jaay kiy jaay client la bëgg lépp lu ko te télé pour beauté la bu njëkk da ngay gis sax booy dem di def casting animation wala nangam danaa la yow rajo nga war a def. parce que sa voix mais mayu la ngay def. kii ñu ni la noo télé ngay def ak bët léegi nag nit ñi ñoo bëgg a jafandu ci loolu mais loolu loolu loolu loolu du wax ji nit ku nekk am na droit jouer fu ko neex nit ku nekk man am naa droit bind sama film nga ñëw di ma interview ma xool gis ni eh mais bi ma bind kii la dama lay jël boo àndoon ak ku artiste comédienne bu jógee Nollywood te casting bi laalu ko kenn du ko jël casting xoolul xam-xam profil lay xool profil bi moo adopté li nga bind. Uh-huh. parce que téléfilm da ngay rëdd ni fii lay tàmbalee fii lay yem. loolu ngay topp nag souvent casting bi mooy premier critère yi tax nit ki mën a recevoir sa film ba gis awa ak keneen i mii eh, ñii ñoo bokk ndey bay du noonu doo. mais uh-huh. ñii nangam loolu mooy casting. bokk nag ak yooyu nit ñi ñooy wax yooyu rek mais ku ne am na droit def téléfilm même bu dee am na artiste yi koy wax dañoo juum téléfilm kenn moomu ko c'est valable pour tout le monde nit ki nag mën nga dugg ci téléfilm virus bi dugg la wala nga bëgg a dem uti xam-xam nga dem defi formation doon comédien comme ñëpp parce que kenn judduwaalewu ko. Mhm. kii day doon téyër dem màgg ba gis ko dem ñu defal ko capacité mu jàng. mais Aliou Mbaye tey est-ce que ñi nga xam ne dañoo jàng théâtre comme ce genre yi. Mm. duñ dem ba nga xam ne dañuy am problème. mënuñu am problème. ndax la <laughs> mais yow man damaa jàng xam-xam. Mhm. ma yor sama xam-xam. man mënuma am problème parce que man am naa possibilité demal sama bopp. mais Alioune Mbaye yéen tey ñu bëri gisatuñ leen ñi nga xam ne dañoo jàng théâtre yéen mi nga xam ne yéen a ngi ci association Arcos bi ah. Hmm. yéen tey pour ñu gis leen c'est tout un problème wala suñ ci gisee nit benn ñaar ñetti nit du ci weesu. waaw xam nga problème mu sénégalais mooy bu la gisul ci écran rek pour yow dundoo aar <laughs> wax naa la écran téléfilm la tey ñaata artiste comédien ñooy génn dem di jouer xanaa xamoo ni télé théâtre moo ëpp xaalis moo ëpp jàmm amul cat. man théâtre naa ay at sama waa kër xamuñu ni damay théâtre bi ma génnee dina ma neex leen yëg ni damay théâtre te pourtant dañuy ne yéen da ngeen sonn kan moo sonn théâtre kat yi dañoo sonn ban théâtre kat moo sonn dañuy feebax ñu leen di kettal yow boo daje woon ak un vrai comédien doo xam ne cest à nit ñi li télé di jaay la ñuy gis sonn nag ak am loolu ci wërsëg la gis nga nit ñi dañuy jaawale ñaar yoon sekk yàlla na ko yàlla yërëm wax na ko nee na nit li mu jaay am nit jaay na ko ñàkk mm-hmm. nit tey jaay na gerte mais jàllu picc lan la ay picc mu doon milliardaire mais am na koo xam ni jaay na xar te xara ëpp picc te ëpp xaalis te amul milliardaire dafa am loo xam problème mu wërsëg la wërsëg nag ak métier c'est diamétralement nit ki li mu mën dëgg mën gi mooy wërsëgam mais théâtre nit ñi ñu ngi ciy dem Europe di ci am xaalis bu weex tàll te génnuñu télé télé nag producteur bi bu ñëwee wax ak man Alioune Mbaye jubóowuñu oh, mais mënoo ma gis ci écran bi man waruma écran xaalis laay wër beneen bi man mais est-ce que man namm naa di génn télé pour noonu parce que affaire yi carrière la da nga koy jaay. Mmh sonn nag yi fi sonn loolu wax la rek. tey nag tey am na comédien boo xam ne am na capacité wu mën a dund këram am na capacité wu yor benn 10 millions ci poosam mu feebar soxla 20 millions mais il ko yeneen 10 millions yi comme ni muy dalee ñëpp loolu bokkut ak nangam parce que kuy dundee sutura bu tëddee ñu utali ko ñaata nit a mhm. mënoon seen bopp tëdd nit ñu utal leen mhm. yenn saa tamit nit yëg ko amul benn comédien bu mës a taxaw ni ma fay may leen man Alioune Mbaye maa yëg ni aw feebar na ci sama mbaax mhm. ma ni way awa dama bëgg ñu jàppale ko rek nit ñi ne nangam mais comédien bu su demal ci kër comédien yi macha xam sonn nan wala sant allah yéen a ngi sant yàlla mais dernière question rek avant ñuy dugg ci deuxième partie émission bi te mhm. de production yi ñaar yu taxaw rek lañ fi daal di gis ku ci mel ni Evenprod ku ci mel ni Marodi TV Pikini production yaa ngi ko doon wax sànq parce que ñoom it seen production dafa nekk la nga xam ne dafa daal di am solo day yeete. Mhm. mais souvent Evenprod ak Marodi TV liñ la ñu jëm tuuma ci côté négativité dafa bari loolu lan moo ci sa xalaat waaw non mën na nekk sax mën na nekk ay xafat sami ñoom dañuy def fukk yu baax benn bu erreur am rek sénégalais yi ni nangam nangam te xew-xew yaa ngi koy seetaan hmm. jël nañ ay yeneen artistes yoo xamante ni ah, tey ñu ci léegi nag yéen comme da ngeen di critiquer rek yu baax amee dee leen ko <laughs> ah, mi ngi nii Serigne ñoom foo bi c'est extraordinaire gisoo ah. ci lu nangam uh-huh. bëgguma tamit chaque jour ñuy xool côté critique rek nañuy mm-hmm. xool côté positif mm-hmm. man fu waay producteur nekk boo jëlee artiste nga joué loo ko rek man man nga ko defal mm-hmm. damay jël sama téléphone woo la la ni la ku baax nga jël jàppale ko parce que pour man fu artiste amee teraanga mm-hmm. man maa ko am mm-hmm. mbëroo di def na ko kii def na ko xoola tey Moussa Seck man moom yow France ma joué ji tey mi ngi ñëw ñu dugal ko ci euh, xew-xew bi nga gisaat ñoom ngu kii ñoom euh, waay ah, ñoom Cheikh Seck ñoom Cheikh Seck nga xamante ni xam nga da ngay da ngay kontaanaat parce que daf lay rappelé yeneen jeu yoo xamante ni macha allah mais loolu lu nuy saluer la mm-hmm. Pikine nii tamit gis nga def na fi famille sénégalais bu extraordinaire da ngay mm-hmm. jigéen ñi naan sama kër yaay ah, am na lekk am na nangam fii lii moo fi di mais bu jëkkee ji tukkee yëg na ni ndekete am na leneen lu lay participer lu dul loolu te loolu tous bu doy waar la gis nga mm-hmm. nitu intérêt bi gis naa seen ñu def ci waa Sidi Fall sama papa ñoo defandoo formation Sidi Fall euh, grand théâtre ñun ñoo fa njëkk a joué sunu génération boobu yumma moo fa nekkoon ñu def taq ci Mm-hmm. Sidi Fall ci la bokkoon ma koddu mbeng yàlla na ko yàlla yërëm moom laa tuddee sama mm-hmm. compagnie bi moo nu yoroon di sant ñëpp di yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi may artistes yëpp jàmm mm-hmm. ñu xelu rek turu bi yeeg euh, association yi comme association bi muy taxaw association li muy jariñ mooy di la orienté ci say dossier nga mën a signé contrat mais crise théâtre moo amoon arko jëli ñoom ma koddu ñoom Ibrahima Mbaye Soppe Manga Matar ñu jàngal ñu ay capacité de formation léegi nag am na beneen crise bu xew mooy production tey ñun li nu bëgg aar bi am du producteur moo ko ciy def producteur chiffre d'affaires am lay xool mhm. nan soppi tur bi ay ay maison de production mu nekk ci biir parce que kuy def kassin foofu nga di nga fa dem est-ce que ako mhm. nga xam ni mooy président arco yëpp rawatina président arco ma bokk mhm. nan soppi arco yi ay maison de production bu ko defee dimbali ñi ci nekk parce que aar tamit àdduna lay njëkk a soutenir yoma xayaam li fa ne kenn xamu ko noonu macha allah Alioune Mbaye am na solo ñu